bi ñu dajale tey ci ndigalu maire ànd ci ak conseil municipal bi mu tegoon liggéey bi yëpp ci loxo Serigne Sidi na ñu ànd ci ak moom ak euh, chef de bureau bi yore affaire hippomobile ñu yaatal waxtaan wi également wax ci ak tous les acteurs ba mu jur tey lancement bi ñu war a pour charrette yi daw biir Touba commencé am plaque donc tey loolu moo ñu fi dajale. lancement bi lancé nañ ko tey dina dem nag ba le 30 juin fii ba le 30 juin commune bi Touba mosquée dafa subventionné plaque yi ku bëgg ci plaque yooyu mille francs ngay participer la ca des commune bi moo koy fay bu ñu weesoo le 30 juin à partir du 1 juillet plaque yi dafay devenir obligatoire et aucune dérogation n'est permise loolu dama bëgg mu leer donc bu ñëwee ba fanweeri fan ci weeru juin ci la délai bi yam ci banche bi également fa lay yem bu ñu duggee le premier juillet ku ko bëggaat du ma sax ku ko bëggaat parce que obligation lay nekk léegi képp kuy dawal charrette ci dëkk bi obligatoirement da nga war a am plaque te su boobaa njëg yi nga ko war a jëndee normal nga koy jëndee ndax subvention bi jeex na à partir également du 1 juillet police ak gendarmerie dinañu immobiliser bépp charrette bi daw ci tali bi fii ci Touba ci dëkk bi te amuloo loolu aussi dañu bëgg mu leer ndax période bi ñu mayee deux mois et quelques dañu bëgg nit ñi mettre à profit loolu période boobu pour formaliser wu dem uti ay plaque ñun nag baaxoo nañ Sénégal da nga naan comme am naa deux mois fii deux mois grave bu deux mois jeexee ma doog koo lijjanti ji mais bu deux mois jeexee le cachet. devient obligatoire maanaam am am takk takk plaque sa ça devient obligatoire te yi tamit boo koy jënd njëg gi nga koy jëndee mooy njëg gi nga ko normal subvention bi dafay jeex les acteurs directs ñi ne bi ñoom ñoo jiite association yi ñoom ñëpp ñu ngi fi toog ñu ci fédération ñoom ñu ngi fi toog beddewu ñu ci kenn ñoom ñëpp ils sont d'égale dignité jël nañ fi kàddu waxtaan nañu ak ñoom dégg nañ leen li fi jot tënku nag ci waxtaan mooy ñoom ñëpp tous les acteurs ñi participé ci réunion bi rafet lañu rafetlu nañu tey liggéey bi ñu war sumb te ñoom ñëpp ku nekk joxe ci engagement xam ne liggéey boobu defaloo ko kenn ku nekk sa bopp nga koy defaral te njariñu dëkk bi dong tax ñu teg ko gannaaw bañ ci amee ndigalu kilifa yi tàmbali ko sëñ Moustapha yàlla na fi yàgg lool te wér mais teg ko ci également loi yi ak charte yi dox ci réew mi muy loi ak règlement yi ndax lii ñu war a doxal dafa tënk ci benn arrêté interministériel boo xam ne bii dañ ko war a appliquer dale ko ci charrette yëpp dañu war am plaque ci tënk rek ma jukki ci charrette bi dañu war am plaque ba kii dawal charrette bi également dafa am âge minimum bu nga xam ne war na ko war na ko am donc lépp jëm ci également ci responsabilité plaque yi jubluwaay bi mooy identifier charrette yi xam ñan ñoo koy dawal mu am pàcc bu am solo nag ci wàllu sécurité ndax tey nangam am na charrette yu bëree baree bëri ñu ëpp ci yéen ñu ngi liggéey teg ko ci yoon teg ko ci charte nekk ay borom kër wàcc liggéey jaamu yàlla lañu xam mais am na ñoo xam ne bii ci leneen lañu nekk dañuy xaar ba ñëpp tëdd ñu jël seen charrette di ci def naka sulul noonu walla it ñu jël seen charrette bi ci gum dana kàmm heure bu ñu amee occasion def ci safaan loolu nag li koy xeex mooy ñëpp am plaque d'identification pour ne pas dire plaque bu ko defee régistre bi ñu def ko ci lu ci benn benn fichier mu nekk biir maire yi ñu xam kan moo moom pass wi ak kan moo koy dawal xam ne tey bu ci jéeye amee yàlla tere ñu mën a xam responsabilité kan moo ci engagé wu parce que lu amul lu responsabilité kenn engagé wul moom daanaka lay nuru pagaille wala anarchie donc loolu déjà dafay revaloriser métier mii nga xam ne bii yéen yéen ko yaru ñu ànd ci ak yéen ci liggéey ci wàllu commune su ko defee liggéeyu police mën na wàññeeku ci anoon yu bari bu ñu xamee charette ñi ko moom ak ñi koy dawal ñooy ñooy def sawan safan xëy na su boobaa dinañu moytu wala ñu ut beneen pexe buñ jógee également ci loolu dinañu fexe li nga xam ne bi mooy seen bëgg-bëgg également ci wàllu besoin ñu koy yëg di ko xam mais day fekk également li nga xam ne bi tënku ci wàllu taxe yi nga warloo ak commune bi également ngeen koy fay xam ne loolu devoir citoyen la ndax service yi ñuy rentre à la communauté ci communauté bi lañ koy dañ koy jëlee delloo ko ci communauté bi su ko defee charrette yi di fay taxe normal cocher yi également am age bi ñu war am pour mën a dawal bu buñ ko sàkkoo noonu léegi nag yërmande doo ko mën a am mais yërmande moom ci loo war a teg si ba war taxawal nga ne nañ ci doxal yërmande amaana say résultat doo ko gaaw atteindre parce que ñun ñoo bindoo noonu suñu sociologie moo bindoo noonu waaw nous serons très humains sans être laxistes fermes sans être tyranniques nañ ci ànd ak yërmande mais toujours ñu am point de mire les textes les lois et les règlements waaw parce que police aussi mënoo leen sant liggéey. Mm-hmm. sant ko gendarmerie te ñoxor njaay ku nekk nga woo ko ne kooku de bàyyi leen ko. Mm-hmm. waaw loolu it dafay am day gàllankoor dina am moment wax ne bii dañuy ni bàyyi nag ñoom ñu doxal waaw parce que mënuñu aussi nit ki nga sant ko liggéey ba pare ne ko lii texte la nii nii dama bëgg ñu appliquer ko ci Touba. chaque demi nga woo ko ne ko kooku ngeen téye bàyyi leen ko mu dem boo leen ko defee ñaari ñetti yoon du ñu sawar. loolu te loolu dëgg yàlla bu fekkee commune bi moom ñu engagé ci boobu ñoom nañu leen bàyyi ñuy apprécier parce que ñoom aussi yàlla may na leen ñu xàmmee ràññee li ñu war a mën a toléré ak li ñu war a mënta toléré mhm. ñu bàyyi leen libre arbitre ñu xool appliquer la loi. may invité les uns et les autres également bu ñu fi jógee tout de suite bu kenn jàpp ne mën naa am ñaari weer avant may am plaque ku nekk na nga jàpp ni délai bi suba lay jeex wala tey ci ngoon lay jeex donc naa fexe am plaque ñu moytu également kenn di jëndal keneen pour plaquer keneen parce que ñun sénégalais xam nañu suñu mbir moom mën nga ne non man daal saa waay bind ma ci sa tur rek garaawul quoi man garaaw garaawul garaawul may jarul joxe sama carte d'identité wala moom carte d'identité yow daal ma rek melal ne fas yu moom bind ma rek garaawul loolu lu garaaw a garaaw a ngi noonu. parce que conséquences yi mu mën a entraîner conséquences civiles yi ak pénales yu garaaw a garaaw a garaaw parce ëllëg ku ko ci def gàddul nit bind turam turu fasam ci sa tur parce que nee na la mënu maa dem wala maa benn lañ wala sama xarit nga ëllëg lu ci am ci conséquence civile wala conséquence pénale yaa koy gàddu loolu aussi il faut que ça soit très clair parce que ñun dañoo tàmmul yóbbante wala non non garaaw kii mën na ma koo gérer ku ko ci def ëllëg. gàddul nit fasam bind ko ci sa turu bopp walla ab jockey bind turu boppam ci ñu maa yore fas yu nangam te moomu ko yoru ko ëllëg ku ci def débat dégat police wala gendarmerie kooku lay teg loxo mi ngi mën ne rek nga jël puce ub jàmm puce dem ubbi ko ci turu nit wala nga abu ne abonné ko nit ba pare may ko ko mu def ci dégat loolu aussi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax nga gis ku fàtte bagage am ci charrette mais du xàmmee borom charrette bi naan non non mu xonq rek la sol wala xale bu góor bu diggu dóomu la kooku kenn mënu ci identifier kenn mais tey booy yab say bagage cib charrette bu la neexee nga jël plaque bi mu gis la wala mu ñàkk la gis mën nga ko jël man il m'arrive des fois may jël taxi mais avant may jël taxi jël naa numéro taxi bi ba pare te mu xamul ne man jël naa ko loolu tey dina permettre tey soo ko fàttee bagage man cee jot. soo su la defee ayib également mën ci jot man gis naa ci jamonoy Covid bi bi ñu joxe ceeb ku yàpp ceeb tout charrette charrette bi daw yàpp charrette bi ceeb bi ba pare mu am lu mu doon wax charrette bi daw bu fekkoon ne moom amoon na plago charrette bi da koy jox police wala gendarmerie toog. le premier juillet bi ñu jëm incha allah ci kàttanu suñu borom ku dawal charrette ci tali bi te amoo plaque police wala gendarmerie dañ la immobiliser. tey su boobaa également plaque bi di nga ko jël bala ngay bouger te di nga ko jënd ci njëg yi ñu ko war a jëndee. de manière générale dans l' absolu charrette yi ñu identifié mooy charrette yi dëkk biir Touba di liggéey biir Touba maintenant ñooñu fiy ñëw ku fi ñëw war fi nekk saisonnier war fi toog durant trois mois pour nawet da am obligation souscrire comme résident. bien que temporaire nga muy résident ngay doon parce que war nga fi def mat deux à trois mois da ngay am plaque xëy na dinañu réfléchir ci benn formule boo xam bi plaque gu résident ngay am plaque plaque saison plaque gu am bu xaw a wuuteeg plaque gu résident permanent yi maintenant ñi ngay xam ne dañuy ñëw nag pour liggéey si ci màggal période màggal ñooñu bu ñu ñëwee taxe la ñuy fay wax bi conseil municipal bi moo koy voté ñu jox ko trésor trésor ak ànd ak équipe sur le terrain di ko prélever mais jàpp nañ ne période màggal li fi nekk ci force de sécurité ci dëkk bi nekk diggante police ak gendarmerie ñi nekk en tenue ak ñi nekk en civil diggante boobu ku fi def njombe dinañu mën a jàpp mais loolu moom parce que période période bu gàtt la presque sur dix jours la te li fi nekk ci force de défense et de sécurité ci diggante boobu jàpp nañ ne nit mënu fay def njomme génne noonu dëkk bi mais ñooñu taxe lañ leen di fayloo taxe bi également mun nañ imaginer que kuy ñu également di fay taxe ñu mën la identifier mais li gën a soxal projet bi daal mooy résident permanent yi dëkk Touba ndax en général nit mën na jëlee ab charrette am ca Dakar wala nekk Dakar def fa njombe ba xajatu fa mën naa daw làqatu si Touba yor fi charette xëy na fii moo ëpp clémence mais bu fekkente ni dañ ko rendre obligatoire ku nekk bala ngay tegu ci tali bi wala ngay jàdd ci ruq wala ngay daw mbedd suuf fu nga jàppe amuloo ko ñu immobiliser la teg laay daan quoi que ñëpp dinañ ci souscrire loolu daal mooy mesure bi donc de manière naa l' absolu li tax a jóg mesure bi mooy les résidents